naa laay yore dem nga bay ma man way naa laay yore wetal nga ma man way naa laay assalaamu aleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Thiam. na nga ko war a. tey wax ah, ah, ah day fay naa fekkee. Euh, Alaaji. waaw Alaaji. ci loo ne na. maa ngi nii di. doom bi ci loo ne. maa ngi nii kii dee nee na. Joli Diouf nii dafa réer. ndondol la dëkk ndondol. ndondol daa réer. képp koo xam ne gis na Njole nag na woote ci 77. 659. 38 09 Mohamed Diallo moom nee na doomu. Euh, Souleymana jàlloo hmm. waaw toll ci fukkat ak benn ba nga jóge woon nag seen kër Malika euh, ca Daaraam waaw ca ngoon booru dix neuf heures vingt heures képp koo xam ne daal gis na Mohamed Diallo mii na woote ci soixante dix sept trois cent dix quarante sept quatre vingt onze wala soixante dix huit quatre cent cinquante neuf cinquante trois quatre vingt six waaw. expresso bi ci euh, dil bi nag. ak mhm. étoile am yu baax ak nag. Euh, euh, forfait yu baax. Mhm. forfait buur jàpp leen nag moo leen may seen émission bu mag bi nga xam ne nag mooy seen émission Teuss Expresso voilà ñu ngi leen di nuyu nag di nuyu ñu fay liggéey ñëpp waaw kay alaaji mhm. moom. Euh, maam jaara ndeysaan moom nag mooy xam ne daal waajuróom moom moo fi jóge waaw maam jaara Dieng waaw papa ma ngi tudd Assane Dieng doon liggéeyee nag euh, doon liggéey ambassade États-Unis Dakar waaw ma nga gaañoo nag ca Rufisque euh, kër taawam bu jigéen bii ñu ndogoy Dieng waaw waaw njabootu Dieng Njaay gis te enseignant yëpp ñu ngi leen koy jaale kii nag alaaji Euh, Assane Dieng mii nag. Mm. Euh, moo doon denc suñu mag gi suñu yaay ji maman Genaar. Mm. Ah, waaw ah, maman Genaar moom xam nga benn doom benn doom bu jigéen la ko yàlla ji xéewale. Canada sax la xale bi di jàngee waaye mi ngi Sénégal. waaw bu ko defee nag euh, kooku doon ko denc nag moo fi jugee. Mm-hmm. ndeysaan ndeysaan waaw waaw waaw waaw waaw waaw donc Assane Dieng tënkee daal la ko defee. yàlla yàlla ci ambassade États-Unis amin amin amin amiin di ko jaale kon suñu jarbaat boobu nag maam jaara di ko jaale tamit euh, euh, taawam bii di Nogaye Dieng nga xam ni foofu la ko defee. Mm-hmm. waaw na ko yàlla xare ci àjjana yi gën a kawe. amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin démb ba ma demee ca euh, dëj ba yaayu maman Vénus Dieng. waaw dama ne ko man li ma jaaxal mooy fukki nit mantulaay yu ñu la tàggee. Mm-hmm. weer wii daal xam naa ne mbir mi doy na allah ji fukk yu ñu la tàggee juróom-ñaar yëpp da nga leen di xam. fukk yu ñu la tàggee laa ne. allah ji. Mm-hmm. set yee jàpp huit yee yëpp. ah. Mm. Mm. ah. nekk nii de. Mm. ah la waykat ah, a jeex baax yi rek de déet mbas mi kay nag ah, bawoon sax moom ñenn ñi ñu ne <laughs> waaye dafay bawul kenn kenn ah? kii nee na. alaaji. Hmm? kii nee na. ñii gaare seen oto ci buntu gaaraasu jàmbur yi. waaw loolu dey kaala de. ñëw fekk garage su balaa ngaa taxaw laajteel ba xam garage bii dafa fonctionnel waaw wala déet buñ ne la. Hmm. garage bii doxul. dégg nga. Hmm. ay yére ñoo nekk ci biir wala atelier la nit ñu ñibbi nañ. waaw kay. dégg waaye yow nga ñëw rek ci buntu garage rek. gaare dem sa yoon. alaaji oto ba nekk ci biir. waaja war a génn mënatul dem. waaja ñëw war a dugg mënatul dugg. nga fanaanal fa. waaw wax dëgg yàlla. loolu tamit. ci Yorof metti de réew mi. Eh? xoolal oto ba lakk ci ci ci ci tali Cambérène booy wàcc oto boobu fa lakkoon. ba léegi nii. ba tey oto baa nga. Ah, man am na ah, ah. jour boo xam ne man yàlla am suturaal rek. dañ yàlla xam na ko dem ko doon rentré. wallaahi. wallaahi lazim dina fi def jëyee nag oto boobu moom tant que def fa jëyee duñ ko jëlee dañuy bàyyi ba mu def jëyee nag oto boo xam ne na mu fay yàggee fu mu nekk oto ku jëm Cambérène rek avant ngaa jot rek ren bi tout ko foofu ñu bàyyi ko foofu ci tali bu neex léegi nag bi gën a métti mooy yeneen i camion xam léegi dañ fay commencé di gaare camion yi yeneen i camion ñoo jaar gaare ci ginnaaw oto boobu noonu heure bu ne mën nañ def ci parce que ah foofu boo fay jaar da nga jaar ak vitesse boo xam ne. surtout boo wàccee montagne. waaw waaw waaw ngay engagé léegi camion nan la mën a taxawee foofu. coow li coow li alaaji mooy tali boobu lañ bëgg ñu gindi ñu. xam nga waxoon naa la fi ma ne la. Hmm. opération jéeri la ñuy def. Hmm. dañuy jékki léegi léegi léegi rek indi seen ni ma seen jéeri jéeri jéeri jéeri ba gars yi ne xoolal xanaa sekk jéeri moo gañ a marché bi <laughs> dégg nga loolu alaaji xoolal. indil la poussière bi jéeri poussière bi yooyu sóob. taxawaat waaw guddiñ toll nii opération taxaw lañ nekkat taxaw ña ngay layam layamal yéen léegi la ñu jékki-jékki mbir mi xumb lool. dañuy xëy du gontu te avancement bi du bari. man loolu ma jaaxal. loolu tamit jaaxal xaw ma mbir mi technique yi mu laaj la. di xëy di gontu. te tali Cambérène boobu li war a. depuis septembre daaw ba tey nii ni mu ciy liggéey. na gaaw noppi nag monsieur le président de la ah. république. tali Cambérène bi dimbali leen ñu ci li laay war a suli. ay waay nit ñoo ngi ah. alaaji li nit di daj foofu ci circulation. li nit di daj foofu li nit di daj diggante bu ndaw boobu alaaji. biir Ndakaaru ngay jógee di ko seen sa kër nii fëri fëri fëri fëri alaaji ay 3 minutes 4 minutes ngay laal fii ba yegg Cambérène boo yeggee taxaw. ni tàcc xaw faa def une heure de temps. non métti. non dafa métti foofu moom dafa métti. dimbali leen ñu waay. dimbali leen ñu bu dee dafa am leneen ngeen wax ñu. bu dee état bi amul xaalis tam ngeen wax ñu ne dañoo amul xaalis affaire yi avancé wul dimbali leen ñu. comme ça ñu comprendre. dañu bëgg a xam xoolee diggante bu ndaw waaw diggante bu ndaw moo ci mooy fi accident am. oto yi di daan mooy fi oto yi di noonu. mani ak ak ak ak coupon ba jeexee noonu. daanaka daanaka. waaw daanaka. waaw rawatina waa géej waaye moom ñëpp. teggi ba la ñuy jaar parce que. DRT bi tax na. Mhm. ba fi mu nekk nii kaas ba amatul yoon. amatul yoon kaas ba amatul yoon. teg ci la nee na teg kaas ba. waaw boo xasee ba ñëw ba laal croisement bee coow. saa yee. Mhm. nee na ràpp tëju. Mhm. ba wutali kaas ba. droite bee fi sës droite ba jëmoon croisement bee coow. wutali mhm. Malibu. nee na ràpp tëj mooy booru fii mi. waaw waaw waaw waaw foofu daa tëj. tëj na nga ñëw ba pharmacie golf alaaji. droite bi waroon a laal Nations Unies bi dem géej. nee ràpp tëj na. dëglul de. Mhm. maanaam côté gauche bi ne amatul dara. gis nga boo dëkkee golf par exemple tey ay cité Aliou Sow boo fa dëkkee. waaw sooy génn cité bi lépp lu xeetoo ak wàllum gauche baaxul. ah non baaxatul baaxatul. amé aménagement bu ndaw lañ def biir cité des enseignants. romb kër Maman Vénus Guèye. waaye waaye lépp lu xeetoo alaaji ak sa gauche. waaw dañ ko ne ràpp tëj. boo génn tey cité Aliou Sow rek mbiic gauche noonu war a dem pharmacie golf foofu dañ ko éliminer tëj nañ ko. amatul. boo ñëwee ba waaw boo ñëwee ba croisement ma waaw pharmacie golf amatul da ngay jàddaat na le. boo ñëwee ba croisement Béthio alaaji. waaw war a laal sa guus naan da dem Malibu. waaw dañ ko ne ràpp tëj foofu tam amatul. Hmm. amatul yoonu Malibu bi. rond point bu ndaw boobu. lay doon gëj nga fa dee. gëj naa fa jaar. amatul dañ ko ne ràpp tëj dégg boo boo rond rond point bi ci ginnaaw hôpital dalal jàmm bi rond bi nga xam ne moo. bi jëm foofu dem géej rek dem géej rond point boobu noonu. waaw yenn saa yi nga am chance nga ñëw waa ji yëkkati la buum bi nga jàll buñ ne ko ràpp tëj foofu dañ ko ne ràpp tëj tu es léegi man samay dem njaarim li maamu laay. Mhm. wala wax naan léegi taatu géej ga rek. Ah. même une partie de Sam Notaire boo fay dem sax taatu géej ga taatu géej ga ngay laal ba njaarim nga génnee marché maam jaar. defaat demi tuur mel ni kuy ñëw kër Aziz Ndiaye jaar ci tali karo bi dugg biir cité mais loolu alaaji ku fa xam nag moo koy doxee ah, doxale noonu ko xamul doo fa dox de gens bi xam léegi côté droite dañ koo éliminer xam nga waaw loolu loolu xam nga loolu ñaari voie la defoon rek wutali wutali eh, stade ba romb wutali mairie ba romb wutali station ba ci préfecture ba léegi benn bi dañ koo éliminer tournal sëñ Assane. non côté yooyu waxaale wu. voilà réeré woon laa a réer. Ah <laughs> uh-huh. nga yéeg léegi ñëwal fii ci Liberté 6. waaw rond-point bii nii nii nii nii nii ci Walfadjri bi. Uh-huh. gis nga foofu ni mu mel. waaw waaw waaw waaw waaw. waa léegi comme que yow engagé nga ay liggéeyu BRT. dégg nga. BRT mooy lan. ah xamoo gisoo bi bisu transit rapide yi. bus. transit xaw ma. BRT bus rapide transit dañ ko tuddee leneen. Ah, dégg nga fi alaaji dégg yow engagé nga liggéey yooyu ba pare te yow ca jamono ah jooju. fekk na Cambérène ba ca boppam. alaaji ubbeekugul fu nit ñi jëm. man billaay man man man waaw lu ma metti. slogan yu dul jeex. BRT Cambérène bi distance bi moo ndaw te mënta jeex. mënta pare chaque jour ñu aj poto. waxuma loolu de tali yooyu ñuy defar après jours ñu aj weñ defar poto taxawal chaque ñu ngi ngi defar ñu ngi defar tali yi de mais bu ñu ko defaree ba noppi ana liy daw ci kaw ñu ngi koy fabriqué fi mu nekk nii. non koñ yëpp dañ gas alaaji Dakar amul koñ bu amul pax. boo gasee itam daa am loo waaw loolooy sama problème li tegu ci kaw anam fu ñu koy tabaxee. fan la ñuy construire fan la ñuy construire wala aw foofu xoolal koñ yi ñun dañuy def assainissement. depuis daaw nawetu daaw avant nawet ba lañ taw lañ defoon Cambérène genre kii yooyu ndox yi neen évacuation yooyu di jaar xoolal diggu koñ yi lañ leen taxawal alaaji mu kawe ba ñun ñëpp suñu oto yu suufee ñu yor oto yu moom am na ko ñoo xam ne mootoo fa dugg. mais laaj de mais laaj de xam naa. te ba tey benn toq ndox wala gu fa laaj benn toq ndox. wala gu fa bis yi naa daw ci kaw tali yooyu. laay laajte fu ñu nekk ak fu ñu. ah bee moom léegi mu daw nee na 24 décembre. décembre la ñu wax. 24 décembre wax nañu njëgu ticket sa laaj. ñaata date lañu fi joxe woon. ah laaj bii nag moom njëgu ticket kenn mësu ko fi wax. lu daw ba ñu soog a ñëw de dawalaat ko jamono ji naxaw a jafe daa laaj ay liggéey ba xanaa du fomp ko rek raxas ko mu set. laaj dina daaw de le 24 décembre incha allah. ba daw. <laughs> ba mu daw. mais seen wënde la moom. alaaj man dat wi laa dul wax. le vingt quatre décembre. muy naan sama meew lekk sama béy. yow da nga cee découragé fi mu toll nii. yow sa vingt quatre décembre. dama dama lu am jot. waaw nga dëgg ñaan nga. Mm-hmm. ñaan nga. ah sama baay laay ñaanal ak ak ajaratu ñaasa mbeng sama jigéen. waa léegi ñoom nan ñaan ci barke Cheikh Ahmed Tidiane Aidara. wóor. ah vingt quatre décembre mu daaw. teer gi waaw. teer gi teer gi moom dina daw. teer gi alaaji est-ce que xeloo mënal na ko daal. Hmm? teer gi day joxe na njëgu tikkee dina daw man kay njëgu tikkee rek laa doon xalaat. mais comme jox nañ ko daal moom joxe na fi datam. dégg nga loolu alaaji. Euh, bu calme mais xoolal car yeeg njaag njaag yi bus yeeg taxi yeeg clando yëpp si biir cité bi la ñuy teg oto mm-hmm. bi ko ñun ñu si biir cité bi sax dañuy gaare suñu oto si biir mais on est même pas en sécurité. exagéré quand même ah bon. ñu waatal déglu Ousseynou. Amine wax dëgg la. voilà Ameth li muy wax sax des na on est tellement fatigué. Hmm. ñun waa cité Aline ko doon gàttantal cité bu gàtt mais xoolal kaar yeeg njaag njaag kii yi bus yeeg taxi yeeg clando si biir cité bi la ñuy teg oto di ko ñun ñu si biir cité bi sax dañuy. Alaaji. Hmm? Alaaji dama ne. Hmm? ñi jógee croisement Beto. waaw ci biir cité Aliou Sow la ñuy jaar. tataay. car rapide. particulier jaar jaar jaar jaar jaar ba génnee ci porte Nations Unies bi. yaa ngi may dégg sax. léegi au lieu nga laal gauche bi laal gauche amatul dañ ko ne rapat. Mhm. nga def droite. dem fan. duggaat ci biir Nations Unies noonu. di wiiri wiiri yooyu ay. génn ñu di jéem a laale kaas ba wala te Cambérène boobu il faut muy taj moom itam. Cambérène moom duñ fa jaar xoolal Cambérène léegi bus euh, euh, bus euh, Dakar dem dikk. Mhm. jaaratu fa nangootuñ ko. tata yi nii nangootuñ fa jaar. clando yi nga xam ne ñoo fa daan jaar sax léegi dafa fu ñuy yem. parce que tamit mënoo jaar benn foo xam ne nii yow da nga war a jaar jàll nga war fa def une de temps. problème mu Cambérène boobu alaaj waaw réglé woon na lu bari. waaw Cambérène ñoo loru rek. non tali bi jaar noonu bañ na du pare. waaw réglé woon na lu bari. balaa ngay lancer BRT. vraiment wutal benn raccourci. yoon wu dagg woo xam ne ñun ñëpp dañ ko mën a jaar te duñ taxaw. waaw. waaye dagg yoon yëpp ba pare gaañ fu ne nga dëgg la nag. dagg yoon yëpp des benn yoon daal benn yoon moo fi des. di nga di nga war a jaar daal ku bëgg akara daañu mais kaani. waaw waaye nag kaani ga koy lekkee. Mm-hmm. noonu rek yorub kuddu. di ko yey di ko di ko sexal. ñoqati di ah ah di ko ko ñoqati ci pot ñu ko jox ñu ko ñu koy lekk noonu directement. actuellement loolu la ñuy dund. no dafa métti euh, de. ñun ñu dëkk Cambérène li ñuy daj. pour nga am oto da ngay doxo dox. ba sori dama ne la bii cité Aliou Sow laa lay wax nii ba ci Atepa tungu woowu noonu yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp. Ah. nit ñaa ngi dee. dafa metti ah nga gis ku jógee marché yenu nduggoom. dégg nga paan bu diis. dégg nga yenu benn distance. dégg nga parce que amul oto ba jaarale bi Cambérène ko jaay jëndee ko ay oxygène. ah jar na ko. waaw suube dee bi. xam nga sànq dama leen moom mi ngi waaj léegi sama question xam nga sànq dama leen ni wata yi daw ci lii ñuy tabax ni ngeen ni BRT la tudd wata yi anam bu ñu koy tabax am déet. après déggoo leen li ma leen di caax. booba li ma leen bëgg a mooy li ñu tabaxal aw yoon ba yenn ko indi ba teg ko fii ba noppi. Mhm. ba inauguré ko ba noppi chaque année ñu sang ko. mu lànk ni du taw question bi nag mooy ñun ñun dañoo dajale suñu xaalis jënde ko ay feeraay wala dañ ko jënde luy daw. client wu TER bi alaaji nga war a njëkk a laajte. client yéen si. qui seront les clients du TER. man loolu la sama problème. man gisuma ko jëm ñaajo dëkk gisuma ko fay dem. non c'est am na sax ñu fa dëkk dëkk na tam ñu fay ñaata lañ waaw <laughs> ah, jaa ngi noonu nag. <laughs> ñaata. jëm ñaajo gan. waa mi waa mi xam nga keroog dama noonu. ñu dëkk jëm ñaajo foofu la ñuy liggéeyee alaaji hmm? gis-gis. Hmm? weesuwul xale yi ngay bàyyi yëpp ñuy jóge banlieue di ñëw ville par jour Sandaga nga jaar wala korité mhm. wala nga jaar fa guddi may waxtaan ak mhm. Mhm. yi ñëw fii marchand ambulant yu bari biñ toll nii xam nga lan moo xew masque moo xew waaw ndax koro gi ak gel su tabaski jotee paaka fourchette du dëgg ak polio yu ñuy jaay mouchoir yi mouchoir mouchoir ñaata xale ñoom ñooy jóge dëkk ba. di jóge tamit alaaji ci banlieue bi di ñëw Dakar. bari na jël oto yi di jëw. waa nan mi mi mi li ci embouteillage yow nan ngay def ba gone yooyu toog foofu. gone yooyu yow ban politique yow alaaji nga war a mëne ba xale yi toog foofu di am li ñuy am fii nii wala même plus. politique bi ci jëkk mooy politique de considération yow ñuy defaree tali pour xale yi gën a mën a am yoon pour ñëw. di yombal xale yi seen ñëw kii kan la. kan la. Famara Baas. Eh, Famara Baas mu ngi jël seen jotaay. waaw. Eh, lii de jar na seetaan. di ngeen fa dégg dëgg de. ñëpp a jël seen wàll. ma ni léegi Simeer. ndeysaan. Simeer laa bëgg a àndal ci Famara Baas. mu mu mu gane ko. reyal ko gileen ma ni léegi alaaji hmm? nga réew mi moom fi mu nii. fa mel ni ni ko kilifa yi yore. Hmm. looloo ràngati nañ. tey ci une réew mi quotidien dañ fa bind ne concours police. waaw dafa amoon ñaar ñu doon tricher ba ñu jàpp leen yóbbu leen kaso. waaw police laa wax police. waaw waxuma xale buy def examen. police après sixième de police. ah léegi nag kii nga xam ne moo doon defal gelam baccalauréat. waaw tànge. waaw la gel ba tudd. tànge mhm. tànge mbuub. ankang déedéet farwee sant mbuub moom nag sax man duma ca yaar waaw dégg nga waaw moom nag dafa séq waxtaan ak suñuy naataango yu IGFM waaw dégg waaw ci nan lañ ko jàppee hmm. ak lan moo ko dugal te mu dem di exameel gelam ba ak na mu sañse ak moom nan la gaa yi def ba ñëw ba laaj ko ba mu wax baatu góor ba feeñ waaw yooyu loolu daal mooy tës bi tey ba mu génnee kaso. ba mu tëddee juróom-ñaari fan. ah xaw ah, kon baatam moo ko piégé. génn na. moom daal nee na bi ko gaa yi commencé xool di sip action. Mhm. ba yegg si ci identification laaj la sa carte d'identité scolaire wala sa carte d'identité nationale moom mooy wax de. Mhm. laaj la adresse lii ak lii dañuy laaj nii dem mais laajuñu kenn ba ki nga xam ni moo nekk ci kanamam bi ñu ñëwee ba ci moom dañ ko wax loo. déggoo ma de. ni ko dégg ban école ngay jàngee yooyu te laaj te waxloo wuñ kenn. nee ci la sibee action <laughs> ne mbër day daanu tey <laughs> xaadim mbuub xaadim mbuub <laughs> ñu ñëw ne ko yàlla non ay ñu ne ko yow booy ban école ngay jànge yow waaw déedéet pour mu wax gel kay lañ ko war a wax ndax sañ sa gelam la ban école ngay jànge xam naa école ba sama gumba moom ne dafa defar baatu góor normal la wax rek feeñ ba pare xale bu jigéen bi koy interview ne ko lu tax jigéen jigéen lu woo ci baat bi. xam ne mbër daal daanu na. <laughs> tapale kat dégg nga Simer Xaadim euh, bu moomu nag alaaji il faut que nit ñi déglu ko ndax dafay nekkoon actualité moom tamit li mbas mi am doole yëpp. Mbuba Jali benn instant dem na kaw am na fi benn journée boo xam ne moom moo xawoon a déminé. jàpp ba ñaar ba ñett kay. non ñun ñetti fan. moo xam dëkk bi lëmbee baccalauréat ren bi jox ñu <laughs> moom benn donga la rek comme donga yëpp doon xale euh, juddoo fi ñu naan Bawol Jurbel màggee fii fi laa yarooytu fi laa def sama cursus scolaire yëpp loolu mën naa ne à moitié dund ma ko comme ni ko nit ñi yaakaare parce que nekkuma woon si biti pour xam ce qui se passe réellement ndaxte euh, affaire bi bi mu amee am rek juste si nan ma jëlee yóbbu ma si commissariat bo police foofu laa nekkoon si violon bi euh, samedi dimanche après lundi si leen ma déféreetu bi ma nekkee foofu daaw ma jot information yi à part les amis ba venaient là-bas pour me rendre visite ñoom ñoo daan ñëw di ma wax que booy y a de choses yi nga xamante ne mu ngi daw si biti mais bon dama si doon sant yàlla rek waaw. Mhm. wax sa famille nan lañ dundee euh, coow li. waaw sama famille euh, ñu nekk famille boo xamante dama leen di remercier message parce que mën naa ne y a beaucoup de yoo xamante ni buy am si doomu aadama sa famille ñoom ñoom ñooy taxaw sa famille ñoom ñooy nekk au premier rang te doonte maa ngi woon si biir xaw ma woon li ñuy def si biti mais sama xel daloon na parce que euh, macha allah tamit juddu naa fa ma war a juddoo je n'ai jamais eu de problème avec l'état je n'ai jamais eu de problème avec la police comme li ñuy def xale yu góor di leen ramas la nuit et yàlla dogal na musuñu ma ko def moo tax c'était tellement dur euh, premier jour bi ngay doog di dugg ci autopolis premier jour bi ngay doog a dugg ci violon premier jour bi ngay jàkkaarloo procureur premier jour bi ngay njëkk a dugg prison dina metti tellement mais bon si tu sais ne am nga benn famille boo xamante ni kenn mësu leen a xam ci caaxaan benn famille boo xamante ni elles sont prêtes pour tout benn famille boo xamante ni euh, elles sont tellement soudées donc du ma def lu sant yàlla rek sama xel dal ma xam ne carrément tôt ou tard liggéeyu ndey ak sama barke baay dina ma fekk si. léegi ñu ñëw ci euh, bés boobu bi nga demee def euh, épreuve anglais je pense pour euh, gel boobu tudd nga ko sànq d'abord seen relation yéen ñaar nee nañ sa gel la. non loolu xam nga waxu média rek c'est une relation amicale une relation ki est sincère une fille dont j'ai partagé avec elle une même état du monstre bi may def terminal man moom ñoo ko bokkoon mu nekkoon une amie qui est sincère car on a vécu euh, des moments yoo xamante ne c'est inoubliable parce que parce que nit ku nekk da ngay am ay problème nit dina am problème boo xamante ne sa papa ak sa yaay sax duñu ko yëg sa xarit rek moo ko yëg mu jéem a teraanga jéem a ngor may dégg ay relation euh, amoureuse c'est pas mais je vous assure sur le Saint-Coran que carrément c'est une amie une amie sa gel kon non du sama gel je vous man doxuma si caaxaan billaahi temps problème bi mooy jour boobu nee nañ euh, moom mi ngi la doon xaar auberge loolu lañ bind ci média yi waaw te tamit Jassim c'est ce qui mais euh, xam nga rek lu war a am faamu am. mais lan la la fa doon xaare juste parce que euh, koo xamante ni génn nga ne seen waa kër maa ngi defi ji examen il faut que nga toog foo xamante ni dina calme à ce que bu épreuve yi jeexee di nga mën a ñibbi c'est tout. kenn du la xàmmee daal. voilà te kenn du la xàmmee doo génne di dem fenn parce que li ma may faral di wax rek nit ku ñuul moom dafa lëndëm comme couleur peau lu mu la xamal tey bu subaa bu ngeen jotee amaana tey jii nii bu génnoon dem kër xaritam toog foofu noonu ah heure épreuve yi looy def fii xanaa dafa jóge examen buñ jotewee tey jii nii tey bu yàlla defoon ba affaire bi réussir et tout peut-être mën na koo waxee et tout bu boobaa beneen problème amaat voilà quoi. d'accord alors euh, comment ça s'est passé idée boobu noonu nga dem defal ko épreuve idée boobu fan la jógee. Euh, idée bi euh, c'était le vingt huit juillet le mercredi parce que école bi ni nga gis ni depuis bi ñu entamé examen yi période après tabaski bi j'étais si à Diourbel rien que pour réviser euh, avec eux nata man dama tàmm di partager sa que j'ai dëgg la nag awma xaalis awma dara mais maa ngi sant yàlla mais li nga xamante ni am naa ko mën naa ko muy sama ak sama xam-xam dama koy partager ak nit ñi amul benn matière boo ni genre nit dina ma si yàpp sama ma si yàpp maa ngi bu baax a baax a baax léegi nag euh, li ma toog defuma dara ma ñëw ba si sunu proviseur bi monsieur Seye Ndiaye di ko saluer de passage di ko baalu àq bu baax a baax si li fi jot a am mu ne ko monsieur ba mu ne ma ma ne ko euh, vu que dafa ma dara je veux que élèves yi bu ñu ñëw di réviser peut-être xamuñu yoon bi te comme que man j'ai passé euh, sur ce chemin là tamit xam naa bu baax ñoom li leen di xaar dama bëgg ñëw jàppale leen di réviser ndoo ak ñoom bañ na ko ba lii yi nekk fii nii Jurbel yëpp ñu def terminal et tout ñëpp dan daan ñëw élèves troisième yi dañ daan ñëw di ma solliciter seen problème bi ma toogee euh, di réviser ñoom ba veille bi euh, le mercredi ma toog sama kër mënuma mënuma dal quoi parce que man comme si man maa doon def examen parce que man genre ce sont mes sœurs ce sont li ma yéene sama bopp moom laa yéene ñëpp ma ne xaaral ma dem kër xaadim peut-être am na élèves yoo xamante ne dinañ am ay problème wala ay lacunes si benn matière et tout ma ne naa ñëw après bi ma ñëwee fii si laa toog gis leen ñu ñu nekk fii nii quoi benn xaritam génn ne ma xaadim xanaa yëgoo li fi ma ne ko lan ma fi xam mu ne ma Kange de dafa daanu ba ñu yóbbu ko fee euh, sapeur si laa wootee si numéro jot benn xaritam boo xamante ne moom moo ko accompagné xaritam bi ne ma mu ngi mu ngi hôpital urgence ma ne ko d'accord j'arrive tout suite léegi bi ma demee ba foofu noonu si laa ko fekk foofu noonu mu nekk euh, si urgence bi doon nelaw ma patienté après si la docteur bi génne ne ma kii euh, instant bi nii jëndagut ticket quoi ticket pour ñu xoolal ko affaire yooyu noonu si laa xoolee sama poche Euh, j'avais trois si laa demee jëndal ko ticket pour xaaraale yaayam à ce que ma ñëw parce que dañ ne woon yaayam mi ngi ñëw si laa toogee foofu noonu xaar ko après ñu toog bi mu ma ne ko yow que s'est-il passé ma ma man dama jékki-jékki di mer di miir et ma ne ko amoon ah, ma ne ma da nga sonn rek ak stress boo demee seen kër soo reposé woo dina dina dina dal après euh, si dinaa fa ñëw ñëw quoi si hôpital bi après si laa demee seen kër rien que pour seeti ko gën koo dalal xamal ne ko ce n'est rien quoi stress bac bi la rek si laa demee seen kër toog foofu waxtaan ak moom après bi ma paree noonu bay ñibbi si la ma sollicité euh, loolu ne ma xaarim euh, je veux te dire une chose mu ne ko lan la mu ne ma instant bii nii je suis pas prête pour faire le bac mu ne ko comment ça yow tu es prête depuis depuis depuis depuis mars di ko blagué noonu nekk yow pare nga yow boo amul bac kenn du am bac mu ne ma je te jure instant bii nii su ma tiimee kay di xool c'est comme si que ingénieur yaa appui mu ne ko ah moom mu ne ma wax mu ne ma mën na xam naa ne du ma dem defi ji bac ma ne ko noonu yow mënoo jàng neuf mois d'étude nga nekk si école privée tu payes chaque mois nga bëgg a ñëw ba fii nii nga bëgg a jël lépp nga multiplier ko par zéro c'est impossible ça après si la ma waxee ne ma ah comment faire ma ne ko mais nga dem nga def bac bi lu yàlla def ñu xam ne carrément yàlla def na ko parce que tamit kuy jàng mooy ñàkk ku dul jàng doo ñàkk te tamit yaakaar naa ne tu vas avoir ton bac incha allah bu ko yàlla tuddee après si laay demee bay dem mu ne ma xaarim kaay ma ne ko quoi encore mu ne ma xaarim tu penses pas yow doo dem nga defal ma bag mu ne ko man ma dem defal la bag loolu booy ma wax la mu ne ma xaarim jàppale ma rek nga dem defal ma bag mu ne ko ku ma bëgg defal ma ko après waaw mooy loolu mu ne ko ah mu wax mu wax daal avec tension fi mu toll noonu mu ne ko waa d'accord amul problème après dinañ si wax ma dem ñëpp bëgg ko dalal quoi parce que tamit bëgguma yokk feebaram di ko wax déedéet à ce muy xalaat lu bari mu ne ko waa d'accord bi ma demee suñ kër si la ma woowaatee insisté ma ne ko il faut qu'on se ñu gisantee waxtaan affaire yooyu noonu si waxee avec tamit tout ce qu'il pour moi ma ne peut-être c'est une dette boo xamante ne dinaa ko ko fay même si c'est risqué aussi je vais le faire voilà quoi c'est ça. léegi euh, tenue bi euh, yére bi moom moo la ko choisiral wala comment ça s'est passé. ah si si moom moom moom ma indil. moom moo la habillé yow këram nga solo. non non foofu noonu fi ñu nekkoon si euh, auberge bi foofu la ñu nekkoon te auberge mais man après par la suite si laa xamee ne foofu auberge la parce que ñun dañu laajte ne ba xam amul fii nii ay kër yoo xamante ne du ñuy loué et tout si gisee soo gisee affaire bi kër décce lan si bind ama kër décce ça veut pas dire que auberge la léegi ñun si lan ko xamee si lan xamee ne genre fii nii yaa yaa une yaa une chambre à louer et tout léegi si lan demee foofu noonu nekk foofu noonu et mais yàlla xam ne on savait même pas que sax auberge dafa des ah Mame Abdoulaye. des na ah, mhm. baax na daañu dem ci tali bi. des na tali bi rek. pare daal di ciy jublu la. Ah, ci loo ne. Mhm. maa ngi ana waa Gunaas ak ñetti mbaar. Mhm. ñëpp nga ak waali daan. ak parc parc. parc te du foofu la kii dëkk eh, ci la te du parc la. mooy en face euh, Limamou Laye kële nag. njéeme baar waali daan. ak grand gay grand gay tam waali daan la gay gunaas waali daan. Rhône nag Rhône nag. déedéet Rhône cité Junqom la. <laughs> Rhône ak Mamadou Fofana ñoo bokkoon. yee tët. non Rhône. maa ko mere. waaye grand non dama ko mere. nag laaj nag kaay ma la benn affaire de. gis nga question de sens rek billaahi sens la de. billaahi ñàkk a kenn def damaa metti. non non non affaire non alaaji affaire yi de sens rek la. Mhm. yàlla mën na la sut waaw yàlla mën na la suturaal nga dal ci koo sax booy xool ba biir moo naan la ñaar fukki at yi kat lii ak lii ak lii est ce que tamit doo wut ku ma wéete léegi yooyu yéen si am na ñoo xam ne ñoom ñooy takki indil seen borom kër xanaa xamoo loolu te yooyu nga am ba léegi de. waaw ça dépend rek wërsëg gi. ah léeg-léeg doo ko ñëwee doo ko xalaat non non même booy wax ak sa yaay téléphone nii baatu jigéen bi di kii ci suuf nii. danaa la dindi sa nopp ma xool ki ngay waxal kan la non non non. kon ma jël ma jël ñi ma am ñëpp bind ci sama sa sa ndey ak sa yaay ak mère bi dafa ba ganaar ko jigéen seeni borom kër duñ ko yar seen kër luy xeetu jigéen du fa ne fas ko wajaan ma kenn du ko fa takk <laughs> non mais affaire yi sens rek la ne alaaj de. non yàlla xam nañu ne que. non non non alaaj alaaj bu ko tiitaroon. ah non non non loolu question de sens la. non non kon nag mais naa ko topp. non non non non ban ndooy fa. ah yoon doon kay ndooy ndooy kii kay dafa sori. ron kay daa sori ndooy ngi fi di. ah waaw xamoon naa ne fa ngeen jëm. ah, ah, ah waaw waaw waaw papa. ah yow nga am sa bag boobu rek nga. am sa bag boobu di yóotu bag boobu. <laughs> booy. ci loo ne waaye yow. Ah, waaw man daal fii kenn dong laa bëgg mu nekk fi moom benn jigéen rek muy muy madame madame Mbaye madame madame madame Mbaye. madame Mbaye ah. madame Mbaye mu Fallou Mbaye. ab sabaaw la mu mujj Fallou Mbaye sama wëllëre la moom chaque année madame Mbaye moom muy indil sama gàllankoor ah, anniversaire. ah déedéet déedéet alaay loolu moom ko jàmm waaye nag. ab sabaaw la mu am kenn. ah déedéet dara ko am nag de. ab sa ab sa jëkkër ñu tudd alaaji Fallou Mbaye. Fallou Mbaye. Fallou dana amaat de. Ah. Fallou déedéet. si si day am dina am si si si. Fallou amaat de su ma la waxee ne dina amaat rek dina amaat. yow dama la mos a wax de man kay man moo tax ba nga waxee dama. madame Mbaye ne la ba yàlla noonu. yow nee ko mu ah, wax du ah, amaat. d'accord nee ko mu wax amaat. alaaji alaaji rectifier leen. rectifier laajal laajal laajal ne madame Mbaye du ak mujj alaaji rectifier li nga wax. laajal laajal ka ñëwoon sama sama sama kër. Euh, euh, Serigne Xataab yor toor suba ñu ñiit naan nii ñuy fo ba ma ne ko baax na Eh, ba ren di dee. ah eh, jaay la na ma ba madame Mbaye na ma bañ a seet si ma ñaanal ko. moo ne rectifié waxuma ay seet si à distance na ñëw ma tàllal ko nii. yàlla ma la ko ko a am. déedéet damaa wax nii ba pare damaa wax ba pare moom kay il faut mu ñëw. moom kay il faut waaw il mu tàllal loxo mu ñëw. madame Mbaye dina la ko jaral. bu ma ko ñaanalee day. dina la ko jaral de bu ma ko ñaanalee day. ah cam waaja day fa lay jaaree fi damay ragal ne waaja sax alaaji xanaa du may sa doomu ndey waay doomu ndey joo xam lekku ma ca ma ca gato fii lañ ko dagga déedéet daggat buñ koy daggat fekk dem naa ah waaw tontu waaw fii booy waaw waay waay alaaji waay waay dimbali ma fii lañ ko daggat waaw non non man kenn joxuma ci ñamuma ca ñëpp a lekk ñamuma ca yaa demoon ah, ah, ah yow kat yaa yaa ne maa ngi dem ñamuma ca moom moo ma mu ngi dem encaissé ji moo ni ma mu ngi dem ah, encaissé ji kado yi yow kay encaissé wu ma daal yow kay yaa ma woon indi Bamba Fall doo nga fi indi enveloppe te doo kay yaa ni ma dama koo xaj ci digg bi jox la kaajin wa ca des ma ma ma ma euh, laal ci njaboot ña présent woo waaw muy simeer di Birahim di Mantulaay jotoo ah, jotoo benn dara dara benn pour man yeneen sponsor yi benn ah kon kon sama xëy di nag doy na waar jotuma kenn pour yow yaa fi jotub gato lekku ak yeneen orange money yoo xam laa ko teg ñëpp ñëpp non non lekkuma ci man madame Mbaye indi waa léegi man mii ñaankat te organiser eh, eh, eh, anniversaire bi anniversaire ko organiser ko organiser saabu du fóot boppam lépp maa ko waaw moo waaye te yaa ëlbatiku dem encaissé gi ndax ñu ngi fi pare ne yàlla nangul tontu de waaw ñu léegi sponsor am nañu pare booy foo nekk nii gisuma kenn booy foo nekk yàlla xam ne gisuma kenn waan joxul déedéet madame Mbaye daal laa gis indi ma gâteau madame Mbaye day gâteau boobu jaay <laughs> dana ko wex na bañ a teel a ñëw gaaw bal jàmm booy euh, Fallou Mbaye maa ngi lay nuyu di la siyaar borom këram laay nuyu noonu <laughs> te maa ngi lay encouragé ah, ah, ah, waaw voilà. encouragé ko sama jëm neexul de. ah ma nga ma a woo madame ko nee ko lu mu fi wax teg nañ ko bët. alhamdulilah. nee ko moo raw bun jonno li ngay wax Fallou nekku ci. El Hadj Fallou mooy ki ci buntu. waaw mooy ki ma gisoon démb ci buntu bi. déedéet bokkul ah, ah. kooku aaroon na la aaroon na ko. El Hadj waaw. nee ko moo raw moom bun Abdallah jonno bu baax bun jonno bi fi woon candidat yi du passé loxo. nee ko sama sërif bee ko raw. lu mu wax. teg nañ ci bët ah, na madame Mbaye ba ah baax na Marie Mamadou Fofana nee na même booy footi léegi ci rajo bi sax del xool li ngay fooy léegi Marie booy foo ne nii man damaa ragal say kàddu de waaw acca wax ma fi nga Fallou nee na mu ngi lay nuyu waaye li nga nekk nekku ci di non non non waaw laay laay la pour l'actualité du trafic sur la 89.7 nous sommes passés tout à l'heure sur la corniche précisément rond-point place du souvenir africain foofu la tey amul jafe-jafe mun fa jaar daal di wéy circulation euh, surtout nag ñi nga xam ne ñoo bëgg a tàllal foofu la c'est dans les deux sens naka sur le tronçon ralliant Corniche vers Relais jaaree buntu ministère de la santé foofu la de complications seulement rek intersection bu relève xaw a yow tuuti rawatina nag xam ne ñoo sur la VDN jaaree ko nag ci pont Seydou Nourou Tall na ginnaaw relève aussi mën fa jaaxee daal wutili point E wala sax ngeen tàlla sur l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar foofu la de complications seulement les véhicules mal garés moo leen di yàggal ci acte rond-point Canal 4 gàtt wala sax ngeen tàllal rek daal di wuti li nga xam ne moo nekk rond point sam foofu la aussi amul benn jafe-jafe c'est complètement dégagé pour le moment élage waay jërëjëf euh, Aca Simer Vous devez acheter des produits et vous manquez de temps. Achetez en toute confiance sur Jumia. Des produits de qualité et garantis. Retrouvez de l'électroménager, frigo, TV, du petit électroménager de toutes les grandes marques. LG, Sharp, Binaton, Samsung. En plus, sur Jumia, vous trouvez aussi tous les produits du quotidien, tels que le riz, la tomate, l'huile, le sucre, les produits de beauté et ceci toujours au meilleur prix. Passez vos commandes sur jumia.sn 21. Gubi moo ñu saaf teg ci bëri feeñante gubi moo saaf ngir la jox ca warte meew laal yaa dafay may doole kër gi la mbégte kër gi la mbégte kër gi la laal yaa meew ci meew yi wax ma ban la laal yaa meew bi gën a Micocédie. teranga xalal na leen yow de états waaw waaw ak mbégte lu rëy la leen Sénégal indil ba ñaari vol ci semaine bi ci yoonu New York wala Washington li ko dalee 479 000 francs CFA kese ci dem bay dikk bi jënd leen gaaw seeni billet bala 31 octobre soo leen bëggee tukki fii ak 31 décembre ngir mën a bànneexu wàlle bagage 23 kilos bi ñu lay baaxee te doo fay dara leen ci agence Air Sénégal bi leen gën a jege wala ci www.flyersénégal.com Air Sénégal Esprit Teranga. Intégrer une grande école. Le groupe ISM, pionnier et leader de la formation en Afrique de l'Ouest depuis 30 ans, vous ouvre ses portes en licence ou en MBA Master. Construisez dès maintenant votre carrière professionnelle en intégrant l'un de nos campus situés un peu partout au Sénégal. À Dakar.e, Thiès, Kaolac, Sali, Louga, Saint-Louis, Ziguinchor. Optez pour une formation de qualité en gestion management, informatique, digital, droit ou encore sciences www.groupism.sn ou sur WhatsApp au 221 76 224 19 40. Osez l'excellence, intégrez le groupe ISM. Sadaqallahul azim. El Hadji Mamadou Chérif Diallo. Zawiya médecine traditionnelle internationale. mooy woo clientam yëpp ñu daal di ñëw nag cité Aliou Sow. villa numéro 3. récupérer seen carte fidélité ngir wàññi leen 50 pour cent. dimanche 15 août la diggante 10 heures ci suba ba 15 heures. di sut ñaan la ak récupérer seen carte de fidélité. bépp doomu aadama boo xam ne nag da ngaa amoon yéene jaar ngir jël ci say garab mën ngaa xaar ba altine ndaje yi ci boppam kon la ñuy bañ ak li mbas mi toll te nag di fàttali képp kuy ñëw indaaleel sa masque ngir ñu respecté kon mesure barrière yi téléphone ba lan la 77 302 20 30 wala 77 537 36 17 wala 77 190 14 14. Zik FM, Zik voilà. voilà. mais solo bi euh, sër la woon robe bu musóor greffage poitrine bi expliqué ñu. ah man man franchement man je je je préfère à ce que ñu ñu ñu bañ a wax si si si si loolu quoi. parce que photo bi xam nga photo bi ñëpp gis nañ ko photo bi ñëpp a ñëpp a ko partagé. ah lu ne faa nga kay kenn du ko jeex àdduna bi ñëpp gis nañ ko kay. waaw ah, mooy loolu maa ngi dégg ay perruque ay make up xaw ma make up xaw ma ay maquillage et tout. mais je te jure c'est pas vrai man. maquillé woo da ngaa solu juste. maquillé ma dama sol sama masque après li ngeen gis noonu moo si nekk mais. amul greffage ak musóor. non amul greffage amul. kol nga tegoon sa bopp. si si kol moom moo si nekk mais amul greffage. amul sa robe ak sa. waaw ah, dafa mel ne affaire bi robe la dafa mel ne waaw. <laughs> ko <laughs> a <laughs> léegi ba nga ñëwee ba nga ba ngay euh, auberge bi kër de cee comme nee bëggoo turu auberge di dem sa fit daloon. ah ma xool sama fit daloon na dalut parce que dama ne man lu baax rek moo ma tax a jóg nag defin bi ñaaw na mais yàlla xam na ne jàppale doomu aadama man moo may moo may moo may sànq à chaque fois parce que man maa nekk nit ki nga xamante ni je vous assure sur le Saint Coran nit ñoo wax ma problème am man bamba réglé ma ko non boobu man même su ma tëddee sax du ma nelaw man maa mënul refuser nit man mënuma gàntu nit soxlaa ma alalu alalu kenn soxlaa mu daraay kenn man lan laa soxla sa nit nga jox ma sa xol nga jox ma sa temps nga wan ne ma carrément la nga respecté ma nga bëgg sa ay études nga wax ma lu leer loolu ku ma ko def rek moom nga ma jàppale doomu aadama moo ma taxoon naa jug ma ne vu que man su suis euh, un étudiant boo xamante ni peut a jàppale doomu aadama wax na ma problème am ne ma lii mënu ko te lii nii boo ko defut peut-être dina dégg rumeur ba ma basé aussi loolu rek daan garaawut naa sëgg dem sëgg dem génn dem et tout voilà quoi. nga yegg si dugg ci saal bi. Euh, toog euh, instant yooyu yëpp da nga ñëw toog sëgg wala. ah dama toog comme yeneen nit yi rek. ñu ngi naan ay gestam xoma yu ma xamul. man man man sax en temps réel rek. bu may def examen du ma di def ay gest yu bëri yooyu noonu. da nga doon def ay gestes yu bëri loolu la rumeur. waaw maa ngi koy dégg ay gestes xaw ma mais en tout cas peut-être loolu lu waroon a am la rek. parfois boo stressé doo contrôler say say kii. j'étais même pas stressé wallahi amul lenn lu ma doon xalaat parce que épreuve bi toog naa liir naa ko te bi ma ñëwee fekk naa fa ay ay nit président jury bi ni laa ko rombee si porte beetu mais dama dama xam ne ñëw naa ba foofu am lu may paniqué de benn yoon lay doon te tamit ma ne comme que ñëw naa ba fii kay y a pas d'autre chose à faire que rek ma. d'accord léegi euh, bi nga ñëwee dugg toog euh, commencé woon nga bind. ah bien sûr man ma commencé def épreuve bi bay ba <laughs> topic nga naan ma ay bay waaj a rendre. may yow man su ma amoon minutes si classe génn ma fa de. <laughs> léegi ban ban la la la la gars du woon euh, Kange moo toog. ah man kay <laughs> man damaa jékki-jékki rek gis sawaay di di di vérifier euh, identification yi ak yooyu noonu. mais bi muy vérifier identification yi loolu gis naa euh, ñaari surveillant yi taxaw foofu noonu. di waxtaan quoi mais boobu dute woon naa newoon naa ñii nii c'est bien que ne si man la ñuy wax après si lan ñëwee vérifier identification yi ba ñëw ba si man léegi ah, ki toog sama kanam avant muy agsi si man ki toog sama kanam def na ko ban école ngay jàngee mais man dama ne kii lan moo tax li mu ñi mu ñëpp waxu leen ban école ngay jàngee mu ñëw ba ki nga xamante ne moo ma devancé mu koy laaj kon avec avec ce que j'ai en filo ma ne carrément kii am na am na lu muy dute xam naa mu ngi jéem xool sama voix quoi te même chose bi mu ñëwee xam nga gars yi dañuy ñëw xool identification xool sa convocation ak sa carte d'identité scolaire wala carte d'identité daal di jàll wala yooyu mais dafa ñëw xool carte scolaire xool convocation yàggu si ma ne après si la ma ne euh, ban école ngay jàngee boobu nag laa commencé xam ne carrément ñii dañ ma soupçonné voilà. jéemoo changé voix jigéen jigéen lu sax. même pas même pas man moom dinaa. loo leen wax. ah dama leen wax rek école bi may jàngee après ñu ñu xam ne sekkuñu ko ak jigéen. non après que man xam xam naa ne li ma la wax xam naa ne carrément ñoom xam nañ ne genre c'était pas Kangué qui était présente mais dañoo bëggoon am lu leer parce que loolu noonu c'est pas sûr de ñëw rek daal di ne nit ki yow doo góor wala yow doo jigéen te fekk ne yow li nga doon wax yow c'est pas vrai loolu euh, lu graaw la quoi léegi nag ñoom ils sont tellement intelligents ñuy def mais ou menos di def ndànk ndànk ndànk ndànk ba ba ba xam ne carrément c'était pas Kangué qui ki présente voilà. ça si euh, qu'est-ce que tu as ressenti bañ bañ la identifier. Ah, euh, j'étais tellement peur. J'avais dit que, oh, jàmbaar daanu na quoi, je te parce que man dama ne maa ngi dimbali nit. waaye man maa ngi naral lor ay nit. parce que am na ñoo xamante ni ñu ngi si biir classe bi peut-être concentré tun affaire yooyu après bi surveillant bi commencé di def affaire yooyu dama woo président jury bi président jury bi ñëw daal ne ma wàcceel sa masque affaire yooyu ma wàcc sa masque mu ne ma ok génn dem woo policier avant ñuy ñëw di woo policier ak yooyu noonu laa jugee taxaw foofu ne leen on peut sortir s'il pour ñu bàyyi nit ñi ñu concentré wu parce que tamit bëgguma gàddu àq ñaari yoon ndaxte àq bi ma gàddu benn yoon rek doy na sëkk mooy à ce que ma habillé wu def jëfu jigéen itu te loolu maa ngi si maa ngi si ñaan suñu boroom mu jégal ma ko mu jégal ma ko bu baax baax a baax waaw léegi nag si laa génnee ne ko na leen génn pour ñu bàyyi nit ñi ñu concentré wu après président jour bi xool na ma xam ne carrément kii il est un quelqu'un ba nga jàpp nañ ko tamit mu ngi sóoraale yeneen si laa génnee dem foofu ñu xam ne ñu ne ma yow tu es ma ne leen si un homme affaire yooyu noonu après si lañ woowee police pour ñu jël si ma yóbbu ma et tout voilà. Euh, instant yooyu noonu loo loo loo doon xalaat bi nga nekkee ci oto police bi ñu lay yóbbu lan moo nekkoon sa yëg-yëg. dama dama dama jaaxle jaxasoo dama jaaxle tellement parce que j'étais tellement étonné parce que étonnement bi mooy des choses qui sont extraordinaires su ma nee extraordinaire c'est quelque chose qui dépasse à l'ordinaire te su ma nee l'ordinaire c'est ce que j'ai l'habitude de voir ce que j'ai l'habitude de faire et te li ma gis keroog c'était pour la première fois donc jaaxaloon na ma tellement métti woon na ma tellement mais bon dama ne rek naa delluwaat lépp si loxoy yàlla te xam ne nul ne peut échapper à son destin tey jii nii bu bu yàlla ne woon yéen du ngeen agsi tey Jurbel jóge Dakar agsi Jurbel kenn mënu si dara te yàlla def na ngeen agsi si jàmm ak salaam ba gis xaadim bu comme ni ko ñëpp bëgg a gisee et tout ma ne naa delloo lépp si loxo yàlla rek xam ne carrément on m'a appris que nul ne peut échapper destin te tamit parfois on n'est pas sujet de nos actes quoi voilà. ban instant moo gën a ci instant yooyu. si instant yooyu noonu mooy euh, bi bi bi bi ñu ma yóbbee euh, ba ba ba sama première pas ak tamit bi ñu ma bi ñu ma bi ñu ma manutee moom sama ronxañ wadd na te wallaay yëgu ma ko ak tamit euh, bi ma bi may njëkk dugg si violon bi commissariat bu police boobu jooy naa ndaxte dama ne dama ne man dama tracé woon sama chemin ma ne man du ma mës si sama àdduna du ma sàcc du ma mës Amadou Ba du ma mës a violer nit te tamit du ma mës a am problème ak état donc man loolu noonu tey jii nii respecté ma ma teg sama tànk si violon bi na ma trop trop trop maa abdoulaye. instant ñu lay defeere yóbbu la nga nekk fa ak ay prisonniers peut-être yoo xamante ne ay criminels lañ def nañ ay crime loo fa dund biir prison. waaw yaa ngi wax nag loo xamante ni su ma koy xalaat euh, dina ma dina ma yóbbu fu sore sore sore parce que. Euh, métti na daal métti na tellement ndaxte si biir prison bi mën naa ne comme si que dund naa fa at su ma nee métti na du métti na par rapport ak dund beeg yooyu noonu quoi parce que affaire góor la te tamit leen naan foo dem fekk ay nit fekk naa fa ay nit yu baax barki Serigne Touba ay nit yu baax ay paa ñoo xamante ni ñoo mag sama ay pap ñoo xamante ni maa leen mag ñoo xamante ni sama ay génération la ma dem fekk leen fa ñu dalal ma affaire mën naa ni dafa ibbi sama sama sama sama vie ndaxte daf maa xamal loo xamante ni mosuma koo xam ma continuer nag dafa jaamu yàlla jaamu yàlla à ce nit ku ma fa fekk mu tane wala mu néew lépp loo xamante ni mën naa la koo jàppale ma jàppale la paaye jël ma taf ma seen xol ñi ma tollal génération ñi ma mag jël ma taf ma seen xol wallahi ma mel ne comme si que man j'avais fait des années là ba amul kenn koo xamante ni bëgg na lu ma metti ñëpp muy pénitencier yi muy policier yi ñoom ñëpp jël ma rek bëgg ma seen bopp ma fay jaamu yàlla mënu ma lekk lu moo nar a lekk rek su ma geesoo gis benn paa wala mu gis benn xale ma jël ko jox ko sama ay yére yi may sol ñoom laax daan bokkal musuma tëdd fu nooy gis benn paa. danoo metti dañ ne ma bamba ba ma mu ne ma kaay toog fii nga tëdd mais barke alxuraanu karim bi ma bi ma toogee premier jour si guddi gi ma gisaat yeneen paa yu ni indi dama ne ñokket jug toog toute la semaine laa la wax mën naa ne dama koy toog wala ma koy taxaw wala may tëdd benn instant affaire yooyu noonu rien que bëgguma gis man nit koy souffrir man ma souffriral ko à place à sa place du moins man moo ma gënal man may gis nit koy souffrir ay param de alaaji boo bëggee dégg dëgg ñoo ko warul bàyyi sax muy dem ci tele ak rajo yi loolu mooy mbir mi dama ni ay param ñoo ko warul bàyyi muy dem ci télé ak rajo parce que yéen nag bu la dalee. ñii jàpp ne ñii ne ñàkk jom la ñii ne déedéet erreuru xale la ñii ne noo nattu yàlla la. Hmm. xam nga li ma la yow la la war mooy nga xool ab ruq. duggutoo hmm. fa wala. Hmm. waaye pour ñëw ci rajo ak télé bëgg a justifier ne sama tappale ga. ma de sama tappale ga. ndax taxoon ma def ko. maa tappale. waaw nangu naa ne maa tappale. dégg nga non moom sax wax na ne ne amitié la bu sincère bëggantewul ak moom comme l'ont écrit les ah, journaux et les waaw. na ko loolu amitié boobu jaral na ko. bon. daal en tout cas daal. waaw ah, baax na. ah kii daa yab xale bi daa feebaroon. xale ba. xale bu jigéen daa feebaroon. te nangu na ne it gone ga da doon xaar fële. ca auberge waaye nee na loolu yëpp nekkul woon ne pour ay affaire u bëggante la. foofu la doon summee koo ko soloo daal. nee na xale bu jigéen bi dafa doon yendu moom tamit fa la dem pour summi yëre góor yi sol yëre jigéen yi dem defi examen pour bu ñëwaatee summee ko sol yëreem xam naa après dem de sax. xam nga nga war a xalaat moo tekkee mais dara. waaw waaw ah, mais mais léegi bu ñu leen bu ñu leen kii léegi bu ñu bu ñu leen demee ba jiite leen. ñu ko ne di njuuj njaaj. waaw. mooy Sanjiri waxoon na fi ne man njuuj njaaj yu njuuj njaaj nekkatuma ci. <laughs> non xam nga olof tamit non olof tam alaaj dafa garaaw. waaw ah, olof tamit njuuj nekkatuma ci. kon maanaam kon yow da nekkoon ci njuuj njaaj. Hmm. nit ñoo xam ne dañ leen a bu réew jël lu toll ni réew dénk la ngeen woote seen dialogue politique addina daje fa télévision adduna yëpp ñëw toog nga ne jarul ngeen may moytu ak dima daw nañ leen ñëw ñu waxtaan waxtaan yu sincère parce que man yëngootuma defatuma nekkatuma ci ay affaire yu njuuj njaaj yooyu dépassé nañ ko gravissime xaw ma gars yi leen di bindal seen seen seen seen seen texte yi xam nga li ma la xaw ma dandul xalaat xaw ma ñoom ñooy jékki-jékki yenn saa yàlla nattu leen xaw ma dañuy rëccale dañuy rëccale dañuy rëccale di ñoom it dañuy rëccale di. Euh. jékki-jékki rek ne dëtëtët bu ko defee nag wax loo xamante ne nii mën naa tukki lu àdduna. <laughs> waaw lu njuuj njaaj yooyu nekkatuma ca. kon yow nekkatoo ci. kon yow daan nga njuuj njaaj. nekkoon nga ca. nekkoon na ca. <laughs> loolu la Sanjiri wax. Sanjiri moo ko wax àddina di ko dégg. mafia kàcc kàcc gi jël ko gars yi nu vaar ko. <laughs> kooku noo ko ñemee te mais mais loolu fii lay jugee alaaji loolu fii lay jugee. loolu fii dong lay jugee fii lay jugee. Euh, nga nekk <laughs> jeune intello xam nga li ma la. am bac def deux ans wala trois ans. léegi nga ne xaaral ma ñëw def wàllum tricherie adduna di dox di dox alaaji ba nga nekkub maire wala ministre wala président de la république léegi loolu nga xam ne nag yow da nga koo dañ la koo nàmpatal ba nga nekkee gone ci wàllum mm. tapale mm. xëy ñu dénk lépp réew mi mm. mais noonu ngay bëgg di defee ci mbirum njuj njaaj ngay ne <laughs> mais xam nga xam nga Alaaji. non mais kii kii kii kii bi mu defee interview ba pare. seen waa kër bi mu ñëwee ne leen dama daje woon ak waa IGFM xam nga la waa kër gi waroon def. daw dabe xale bu jigéen bi ne leen dimbali leen ñu rek lii buñ ko tegte bu leen ko génne. xam nga. xam nga waaw beneen matadi la. xam nga li may. kaay leen ma expliquer leen sama tappale gi ma doon def. mooy mooy mooy li ma wax Mantoulaye sànq. ni fi nekk nii booy bi. man de bokkoon naa ci ñi ko gën a pardonné parce que wax dëgg yàlla bis même bi bi ñu àttee ba noppi man journal commenté dama dama saluer décision justice ni bu hmm. sage la ndax ay gone lañu te li mu def garaaw na mais foog ñu xam ni tricherie dafa ànd ak histoire humanité. ils ont waaw dañuy dañoo dañ ba noppi tricherie dafa ànd ak histoire humanité lépp dawal yërmande que xëy na moom dana ci am kersa yëf yi bett na ko yëf yi nangam nangam nangam mais booy. booy kaay yow bi début bi à la fin ah fi am ay pax ci sa yaram yëpp da nga koy jéem rakiste pour wan ñi da ngaa da nga nekk ci kaso bi ñu indi fa ay paa nga jóg bale mi tëdd da nga yërëm xale bi da nga collaborer ak euh, préviseur bi di jàngal xale yi ay cours de renforcement ay nang yow di début à la fin yow yaa ngi fàtt pax yi nekk ci sa peau quoi booy xam nga te ñëpp xam nañ nit matul man vraiment bokk naa si ñu doon wax ni nañ ko woyefal da ngaa juum. rafetlu décision suuf si mais tey li nga waxee nii moom ah booy gas nga mu dugal ci pax quoi non gas nga ma dugal ci pax. ndax la. cest à moom daf bëgg woon Sénégal yi nii court quoi clean du début à la fin amul fenn fu mu nangu futif clean jàppale élèves yi ci ay cours de renforcement nangam nangam nangam auberge ba mu nekk. Jobel la juddoo fa la màggee nee na xamul ni fa mu luwee auberge la lan moo ko orienté ci di fee néeg yi ñuy luwee fa nekk. Hmm. te mu ni xamul ñu auberge lu néeg bu ñuy lee mooy lan chambre de passage lu muy tekki booy il faut arrêter booy vraiment tàggoo woo même léegi nag doo fragiliser suñu diplôme suñu valeur u njàng mi diplôme bi doo suñu doomi réew yi demee Chine di ko jàng jee di ko demee Japon di ko jàng jee di ko demee France di ko demee États-Unis di ko demee Canada yow nga dévaloriser ko ba noppi. parce que tricherie tricherie pour wutaa dakk ci examen baccalauréat dafay décrédibiliser votre diplôme. ba noppi ñu waaye fan la yan bi ñu la waxee yan. et ngay jéem a justifier que yow kii. mais Alaaji Alaaji bu doon may moom. benn baat dong la jégalu Sénégal yi tout court. voilà Alaaji Alaaji. gis nga boo bëggee dégg dëgg. ay commencement bi dama ne ko lii dama ne ko lee du début à la fin. xam nga yaa ngi wax ne wàllum tricher tapale. dañ ko moo laalee rek ak àddina mooy wàllum sàcc. Mm-hmm. mooy wax lu dul dëgg. Mm-hmm. yooyu noonu moom ñun dañ fi nekk moom ba keroog. moo sax moom ñoo ànd. moom nit ñoo ànd alaaji moom nit ñoo ànd waaye du raison ñu bëgg ko daganal. non non kenn daganalu ko. tappale gi nii non li nga wax ne tappale gi maanaam moo moo àddina ñoo ñëwandoo nañ ko oyofal dugg na fi gerte bi c'est comme le voleur sàcc bi. non sàcc sàcc moom. non c'est-à-dire sens bi nga waxee sens bi nga wax. tricherie identité nit. non xam nga tricherie wax nga du dëgg pour accéder ci salle bi. voilà alaaji ni loolu. alaaji mais loolu. alaaji tricherie ba tey bokkul ak sàcc. li mu ëmb alaaji dafa bari. tenir compte ci ëmb sàcc. dafa ëmb li xew lu mus di am la. Oh. mais boo bàyyee mu jàll ñu bàyyi mu jàll. non xam nga. non ñoo bàyyi sax mu jàll. mënees na ko bàyyi mu jàll. déedéet. xam nga xam nga juum ñu baal la. Ah, moom itam moom dund nit ñu ànd. non non xam nga lan mooy njuumte alaaji xam nga luy njuumte xam nga luy njuumte. Mhm. Euh, doomu taal loolu la wax tuub arab yi tuub dañ koo jàppee doomu taal yoo xam ne xale ya daan ne ca biir nga yaakaar ne ànd bi amul xal nga sóob sa sa loxo soo ni gërëg ni ay waa ndeke lii dafa am ay xal xam nga doo ko ci ca dugalaat. loolu lañ jàpp ne mooy njuumte waaye alaaji njuumte goo xam ne yow da nga da nga koo préparé. Oh, xam nga prémédité xam nga rey nit koo xamante ne alaaji da nga koo waaj ak rey boo ne waajoo juge bi ni mu leen di daanee. mën na am mm-hmm. différence. Mm-hmm. maanaam yow nga jógee sa kër yor paaka. Mm-hmm. loolu la ñuy wax xam nga li ma wala ngeen jóge seen kër yor oto. merci beaucoup yor ay ngànnaay départ wutali bërëb. boobu day sévère. uniquement rek pour parce que diw moom bu ñu ko fekkee nañ ko rey. bokkul ak homicide involontaire. bokkul ak nag ñoo xam ne dañoo toogoon nii di naan ataaye. werante dugg ci wàllum lido bi wala werante dugg ci beneen sujet boo leen doon waxtaanee. bokkul sax ba tey ak homicide volontaire. xoolal nga ñu jóg xeex. diw bomax ko. ndong daal moo dal nii ci escalier yi. pourtant tëdd na hôpital après quinze jours sax ci la dee. xam nga li ma la ñu ne lii la cata gaaw te pourtant ñoom ñaar bi ñu ñëw ñoo ànd. xam nga li ma la mm-hmm. mais tricherie bii moom. moom dee ñoo nuroo loo xam ne da nga koo waaj ci auberge jël ay jigéen simise yu góor intention bu dugg na mhm. mooy maa tappale ci lu ma fa fekk dama koy rey même football sax ma euh, foot yi coup yoo xam ne rouge direct la ak yoo xam ne léeg-léeg mu ñàng lool arbitre bi def la avertissement wala laal la zone bàyyi la nga dem ak ñoo xam ne duñu leen gaañ mais dañu leen di zone intention bi la mm. bu ko fi fekkoon rey ko de mais pour pourtant tànk bi mujjul laal bopp waa ji. laalu ko mais bu ko laaloon day dee. Ah, kay intention lañu sax xam nga avantage boo xooloon mooy yow fi nekk nii doo mën a gëm ni yow doo doo gëm ci li ñu bind rek. waaw da nga ci ci doo ñu bind. Hmm. waaw da ngay ay doute toujours da ngay am ay doute. fii ak waxul da ngay am ay doute. mais moom dañu leeral nit ñi. mais moom voilà teewul teesante. ma mag wolof nee na laa defoon da yokk sàgganu. da yokk sàgganu da ngaa fekk ma mu tëdd. amul solul solul njiitlaay solul njiitlaay ma mu tëdd solul njiitlaay. waaw fekk la sol. waaw ngelaw li naawal caaya ji. waaw nga ko bàyyi foofu na wàccee sa tànk bi yaa ngi sàgganu de. waaye <laughs> foofu ni ba ni déedéet nii laa defoon. di di wax di a bee ngelaw lay yëkkati woon caaya ji kese bii nag loxo ma a yëkkati. <laughs> wolof ni nii laa defoon nii laa defoon da yokk sàgganu. <laughs> bàyyi foofu la bàyyi foofu <laughs> waa nee da ko yoreel bor loolu la. kan moo kan moo am bor. nee na xale bu ko jigéen da ko lebal loo xam ne il fallait mu fay ko. bi lan la. ah xaw ma lu ma ko lebal ah, booy bi nag booy bi. booy booy bi tàgguwul de booy bi <laughs> billahi waaw mais waaw mais dama ne. <laughs> waaw mais dama ne. déggoo kii Alaaji. Alaaji waaw. kii nee na gis nga naafeex dafa bëri. da ngay dégg ñenn ñi naan la ndeysaan borom xol bu rafet la. ndeysaan da doon fay bor rek. ndeysaan xam naa teraanga ji ko xale bu jigéen bi defal ndeysaan. di indi la mu ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan xam naa lim ko defal ndeysaan. nii Alaaji Alaaji. kon daal ku defalul nit examen rafetoo ko. dama toog ak benn benn kilifa yàggul dara. Mhm. station yu bëri fii ci dëkk bi moo leen moom. fii. Mhm. ubbi ay entreprise yéen ñiy toog yéen xam ngeen ko. Mhm. su ma waxoon ci rajo bi quatre vingt dix pour cent sénégalais yëpp di déglu rajo yi waaye moom nag du génn télé sax moom faf mosuma ko dégg tam ci rajo mu wax mais ñëpp xam nañ. mu ne man jànguma demu Amérique njëkk gi jamono ñoom kër mat Sarr. Mm-hmm. kii waa ji moti Mor Mati Sarr. Mm-hmm. mu ne ci jamonoom laa demoon Amérique. man 16 ans commencé naa man ay CFEE euh, euh, ak euh, BFM ak baccalauréat aw ma ci dara amee. Mm-hmm. man lii rek laa xam man commerce nii laa xam daan doole liggéey. xaw ma foo dugg na fi génn fi. dégg nga loolu foofu. ne ko du yow dong. dama dégg xalifu Tidiane yi mu ne keloog bi mu déggee Serigne Mboup di def interview yi en français dafa kontaan. Hmm. Hmm. Baara Ndiaye mii nekk Walfadjri di chroniqueur. waaw. dafa am benn complexe boo xam ni. gaa yooyu dañ ko football teg ko nële. wallaahi. boo demul école tubaab maanaam yow doo ñoo ñu ne déedéet. Hmm. xool leen ci sëriñ Mboup xool leen ci diw xool leen ci diw xool ba moom mii. waaw mais dama ne lan mooy. alaaji lan mooy chroniqueur def njàngan ci actualité politique li am ci biir semaine bi. xalaat ko. ak xalaat ko xel mu ñëw. waaw ngeen ñëw wax tolluwaay réew mi man ni ma gisee yor ngi ci lii ak léeg léeg léeg lii. dëgg yàlla. ñu ne la soo demulee tubaab yi jàngal la. Hmm. doo xel moomu. doo ko am. te jàng ak am xel sa fu ute de. jàng même dee jàng ñëpp. ñu def franco arabe ñëpp. def ay gëstu yëpp xam nañu ni niveau ci wàllu philosophie ci wàllu li ñuy wax te yaaru fikr muy les canaux de pensée bindkatu arabe bi façon bi ñuy xalaatee bi ñuy bindee bindkatu tubaab yi seenuñu leen sax seenuñu leen sax am na benn téere boo xam benn français moo ko bind ku ñuy wax mu docteur euh, Moustapha Lutfi al-Munfluti ab égyptien la moom moo ko bindaat arab tuddee ko al-Fadila ci nga xam ñi jàng arab bu ñu gënu te yeew ñi jàng tubaab. parce que mokkaluñu wala amuñu valeur ca la ñu jàng wala dañoo complexe ci peuple ba ñu nekk. mais Baara Ndiaye bu toogee moom. koo xam ne da nga teel a mokkal alxuraan. Baara Ndiaye njaayeen gi mu bokk. njaayeen gi doon bind ci xasida Sëñ Tuubaa yi. njaayeen gi mu bokk. xeetam fameewam moom. bu toogee ci kanam ku jàng tubaab. mokkal alxuraan daanaka amoo quinze ans. di ci gëstu di ci gëstu di ci gëstu di ci gëstu jàng xam-xam. tey bu toogee ci kanam ko jàng tubaab am complexe jàngat li xew ci ci réewam ku xam li mu jàng da koy da nga koy da yedd wala moom xamul li mu xamul li mu am. moo leen war du yoon de kii daal li mu def nii ay ay mbokkam daal ay ay mbokkam daal. waruñu ko woon a wax waruñu ko woon waruñu ko woon bàyyi alaaji. Uh-huh. muy dem xam nga xam nga gis nga yenn yenn. yenn justification yi fop. day gën a lay gën a dugal. voilà. alaaji boole ma ci lim boobu bon boole ma ci kàmmu. boole ma la boole ma ci gurguru ñoom Baara Ndiaye boobu. man de man de dara ma fabriqué boole ma ci boole ma ci groupe boobu. léegi yow yow yow lu ni man dara ma fabriqué de jàmm ma tubaab de. xam nga la war lan la. Mm-hmm. mooy nga jéem a dem laaqatu mais ëttu politique bi loolu daf ci am yenn say. ah nit koo xam ne yow juróomi weer ci ginnaaw wala ñetti weer ci ginnaaw. amul loo fi waxul njiitu réew mi xëy benn jour rek bëgg a wax nit ñi ne leen loolu ci tappale la bokk waaw mais yow ñi leen doon xeexal nag yow Fofana ñi leen doon xeexal yow est-ce que am leen di bàyyi xel. am na ci ñoo xam ne nag ñooñu moom ñooy gën a ñàkk jom sax leader bu mag ba alaaji. Mm-hmm. ñooñu moom ñoo gën a yées sax leader bu mag ba nga xam ne daa boole ci ñàkk jom lool. politique Sénégal lool. non de non duñ ci jóg ñàkk jom maanaam maanaam maanaam ñàkk jom daal lu lu ñàkk jom nga ciy dugal yu soof. ñàkk jom yow da ngay soof xoolal wayadi. wayadi wayadi. Ah, imaginez yow nit koo xam ne yow démb démb démb rek sa publication démb mooy alxamis alaaj mm-hmm. lan ko ca yekk. weñ wu ci dal dee. nga xëy tey àjjuma démb ci guddi gi nag. Mm-hmm. ñu dégg na sa leader. la mu wàcc woon lekk na ko. yow nga ëlbati ko yow tamit ca guddi ga. dem lekkiwaat. dem bokk ca ñay dimbali sa leader ba wàccu yam wàccu woon moom sax xaw na fa desal tuuti ndax lii laal suuf si nee na du ko lekk. yow nga ñëw fompal ko. jël bool dof nga jëlu bool dof ba lekk ko. ak muccaat ma. non waye di waye di alaaji waye di. muccaat da ngay gis ñoo xam ne tey bu ñuy bu ñuy nguur gi. Hmm. da nga naan non mais. attends dugal seen Facebook rek nga arrière dem ci ginnaaw. Hmm. tam nit alaaji lan moo gën a ñaaw tam nit ba tam ko dem. tam ko sàcc. wax ko ne ko Dieu n'aime pas les traîtres. Mm. ay ngandi moo yoo xam ni sa kooku bu amoon doom yi toll ni yow rey la. alaaji ñooñu nga bëgg a toog tey kanamu senegal yi bëgg leen gëmloo ne leen. waaye daa baax. waa daa baax. fi gën am na xam ne bañ fi tuddee gloria bi xel yi demul ci ñoom mukk mukk mukk mukk mm, mm, mukk alaaji que seen kàddu yi démb daa ñëngoo lool ak jëfi tey ba tey kenn amul ci ñoom xel xel xel ñaar. mais bu ne gloria xel yi ne yar am ci ñu dem mais pour la yaa ko liggéey ku ne da nga liggéey dong nga yekk. non et puis ñoom ñoo ñoo ko tudd seen ñoom ñoo ko tudd sax ñoom ñoom ñoom ñoom ñiy def gloria tudd seen bopp ñoo soow ñoo ko waxal seen bopp de kenn inventé wu ko. ñoom ñoo ni. kilifa gu mag diw diw diw léegi mu rog soow lañ. jaay déedéet moom kay moo ko waxal boppam sax. Ah. ba pare toftal ca sax nag ab gloria. mais loolu tappale mënul weesu loolu alaaji. Ah. waaye léegi ñi ñu jiite moom bu ñu defee noonu. foofa na waaw léegi yow président France di fi ñëw nga jël ay gone dugal leen ci classe gone yi ñu def daanaka juróom-benn fukk nga rangale fa fanweer wala ñaar fukk ak juróom pour woon waa France ne ñun suñ école yi ñun ak yéen a nuroo ñun ñi ñëpp xanaa ñu première di toog à trois am ci ay classes yoo xam ne à quatre da ngay catalo soixante dix soixante quinze élèves par salle mais yow ab njiitu France di fi ñëw rek nga bëgg fa def ñaar fukki élèves ak juróom kooku yi mën a laaj ba dee di laaj ba laaj genn gone gone gi naan ko non non nous sommes soixante-dix. dañ ñoo wàññi dañ ñoo wàññi. xale xale du fen. xool mi mi mi est-ce que gis nga loolu yow. Mm-hmm. xale xale xale yu ndaw yow nga leen di jàngal jàngaloo leen dara lu dul ay fen te yow yaa leen di jàngal. seen ndey ak seen bàyyi jël xale yi teg leen seen loxo. Ah. ne leen jàngale leen ñu ñuy xam-xam ak nu ñuy yore réew ëllëg ak nu ñuy defaree seen adduna ak seen alaaxir alaaji nga leen di jàngal seen. ñi ñi est-ce que gis nga loolu. Mhm. tàppale gi nag foofu la dooree. xale bu nekk jardin ak sëy nga wax ko ne ko de del de del la wax lu dul dëgg. mais kooku bu demee bay def bag nan lay demee. lu sol yére jigéen ñoo taxaw monte ay wen. ak ay ans. am na ñoo xam ne alaaji <laughs> kenn du leen jàngal lañuy lañuy màggee bu ñu amee 18 ans ñooy indi seen coppiteef bopp goo xam ne la sañ seen baay du ko sañ la ñuy sañ seen yaay du ko sañ bari wax. mën a mën a monté alaaji nàmp moo garaaw loo nga jàng. da lay mhm. topp. Mhm. li nga jàng la. walaay am na ñuy tare lu ñu nàmpul. bariwul de. billahi yaay non yàlla dina la gis nga yàlla. léegi la gis benn famille alaaji ñu ne kii de dafay rax mu gën ca kër ga te waa kër ga xëy na mel na ñu noonu am ci ñoo xam ne dañu ñëw nag nekk asakawu asakawu kër gi. ni kii doomu imaam la. xale bu jigéen bi gis nga heure si ima du ko mën a dara. waaw léegi nag kooku ñi ñi kooku ñi dajeeg moom dañu naan sama waay moom fu mu jànge euh, fu mu jógee kii moom fan la jógee na waar de lii de moom dañuy baax na xëy tey suba gi ñu naan ay police ñaara fa doon triché. imaginer ma ñooñu tey bu ñu leen jàppaloon alaaje bañ rëcc. waaw léegi ban genre ban genre policier la ñuy doon. ban policier lañ nar a nekk tey. ñooñu tey ñooñu fan lañ naroon yóbbu nit ñi tey ñooñu bu ñu rëccoon ba doon ay policier ah. ku juddoo nga fayu. papa suñu tosu bërki démb bi. ki jóge woon Mali. waaw di seet yaayam. waaw waaw waaw waaw waaw euh, dañoo perdre contact bi nag. nañu dimbali ndax papam ñëw na feeñ na yor nañ contact papam na ñëw fii ci Moussa mu bàyyi fi contact am comme ça ma woo ko. papa ji feeñ na. papa ji feeñ na. ki sant Thiam xaw ma. ah Faye même démb jox naa la numéro. kenn aussi waa piste yooyu moom ñu ngi ci. yal na ci ki nekkoon ki baayam nekkoon ki nga fekk woon papaam Diourbel. waaw waaw waaw non Dakar. waaw jóge Diourbel ñëw Dakar waaw moom la. kooku itam am na ku ma woo. ku ma nekk impôt domaine ku ma jox sa numéro woon na la. Ah, ah alhamdulilah rabbil alamin ah, Euh, ñaanal suñu jarbaat bi waaye Marème Mbodj nee na day def BFM waxal tonton Mansour mu ñaanal ma allahumma yassir wala tu'assir allahumma yassir wala tu'assir allahumma yassir wala tu'assir alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak amiin inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab allahumma yassir wa la tu'assir allahumma yassir wa la tu'assir allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim yàlla na nga am mu yomb lool amiin waaw yomb lool amiin waay amiin waay dégg nga loolu yow Putu Mbay waaw kay kon ñaanal lañ ma ma dem Mbodj waaw kay kon Dakar am na Poutou Mbaye. Eh, waaw yow chaque jour ma wax la ko tëdd. non ñun suñu côté daa amul ku tudd Poutou de dama dégg sama yaay di ko wax yenn saa yi. non non Poutou bii nag moom tur la est moo fa gënoon ndaw a ah, de ko moom. moom ba na ñoo dellu ah? noonu moo dellu si waat. <laughs> ngeen daaw ni hmm? tabaski bii nii ñoom ñooy ñëwaat ñoom ñooy dellu saa de dooy gis xar yi ci anam yi ni ñuy nuróo ci kër kër ku ñu aw ñan xar mi rayoon damay a nuróo que ñoom nee na <laughs> ba pare ci koñ bi la ñuy dellu saa xar mi ñoom Bas Ngor benn la xar yi deewoon rek ñooy dellu saa moom la yàlla di indiwaat noonu. xaru daaw yi ñëwaat ren. xaru daaw yi waaye yow loolu yëpp nit da mën a jur alaaji xar da koo a jur ci diggante bi dafa bari xar yi demoon ñoom ñoo ñëwaat rek waaye putu ma deewoon nii moo dellu si nii putu

potu meew puttu wax nga dëgg Ah, putu meew putu meew ñu naan la putu waaw waaw waaw waaw d'accord putu léegi maa ngi lay woo putu xaaral nuyul ma Tafa Mbodj nuyul ma Tafa Mbodj ak awa Mbodj putu kontaan putu mbay putu yàlla na yàlla dolli jàmm ci biir réew mi alaaj yàlla nu yàlla suturaal yàlla nu yàlla jàppale yàlla nu yàlla aar te yàlla nu yàlla taxaw amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal yàlla na fi jóge teraanga yi yàlla na yokk mooy yaa ñàkk kersa doom waay ah, maa ngi nuyu waa kañ moor sëñ Ablaye maa ngi lay nuyu waajtaayu suba gi waaw waaw fële ca Saloum ndeysaan ndeysaan waaw kay waay alaaji Simet Diop kon mbokk yi moo nekkoon nag euh,